waaw moom li mu wax rek. liggéey liggéey liggéey moom du caaxaan. yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wasiba man bidwaak lika yaa Allah. kii nag daa bokk ci borom xam-xam yi. jiite kuréel googu nga xam ne ñoo àndoon ak Sëñ Saliou di boroomi xam-xam. mu mu bëggoon laa leeral tuuti ci. bisimilah kon xam naa liggéey bi comme ni nga ko waxee. Euh, Touba Ca Kanam euh, liggéey mii muy ab yëpp euh, dafa am ay kuréelu ingénieur boo xam ne ñoo sofu ci ginnaawam. Mm-hmm. di ko jàppale ci liggéey yëpp. ci tàmbali bi conception bi ba ba muy yéggee ci fi ñu koy réalisé di ko jébbale. liggéey bii nag liggéey université bi bi ñu ñëwee dañoo fekk. démembrement bi nga xam ñoom ñoo nekk ci université bi defaroon seen i plan ak seen lépp ba mu noppi. Touba Ca Kanam ba mu ñëwee nag ñu ñoom nañ ko bëggee woon ci ñu réaliser ko noonu ñu xaatim ak ñoom convention boo xam ne noonu lañ koy respecté ñoom ñoo indi seen biro de controle ñoom ñoo def seen conception architecture bi def dimensionnement bi lépp bi ñu ñëwee nag ba si signé loolu ba noppi dañoo jël benn ingénieur teg ko fa recruter benn entreprise teg ko fa ba pare nag lépp lu ñuy def dañuy woo mission de contrôle bi nga xam ne si ci njiitalu suñu maam Thierno ñoom ñoo xam ne ñooy coordonné université bi ci bâtiment yi fa nekk yëpp ñu ñëw saytu ko bañ na baax na ñu jàll si geneen wet looloo looloo waral bi ñu bi ñu tàmbalee nga xam ne bâtiment bi mu ngi ci bâtiment majalis si la bokk muy euh, toll ci daa daanaka ñaari junne mètre carré yoo xam ne si ñeenti niveau la niveau bu ci tuuf ak ñetti étage euh, niveau bu ci nekk am na ñetti salle de classe boo ko boolee lépp ci ci kaw ba ci suuf mu am fukki ak ñaar ci salle de classe te niveau bu nekk am na benn bureau ak ak ay toilette kii euh, wanag yu fa nekk ak lépp lépp lu muy àndal si saytu gros waaw mooy mooy mooy bâtiment bi nga xam ne ci tàmbali ba ba ba muy yegg ci fin su Touba Ca Kanam lépp loo xamante ni luy lu lu kuréelu université bi tegoon la ne war nañ ko war nañ faa jaar jaar nañ foofu noonu ay ingénieur di ko di ko saytu ba fii mu yegg ci fii nii waaw waaw luñ ci bëggoon leeral waaw waaw li coût bi nag bi bi ñu ko réalisé yëpp ba nga xam ne lépp lu ci dem yëpp mu ngi toll si 521 million na wax cinq cent vingt et un waaw kii nag daanaka bi bëccëg yu ne jaar na fi waaye daal góorgóorlu nañ daal ba tawfeexu sëñ bi ñu doole xanaa mooy équipement bi ñu ngi ko war a équipé yi tamit lépp Touba ci kanam du ko du ko jël nga xam ne du ko jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seyxna Ahmadul Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfat Seexna Ahmad al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfat Seexna Ahmad al Xadim mu ubbee loolu bàkkeeloo ko ci njàngale mu am solo mi nga ci jàngale woon di la nuyu ci tur Sëriñ Habibu ak ñi mu àndal léggéey bi di magam alhaaji sëñ Takko moom sëñ Fàllu mi ngi nii toog di jàmbaar lool ci liggéey bi yoo xam ne da ciy jëf te ay waxam néew ci lool waaye ku sonn ci liggéey Touba Ca Kanam la mbooloo mi àndal ñëpp di nuyu sëñ Amadou Badawi yi mi nga xam ne moom nga tegoon liggéey université bi ci loxoom te ñu ànd koog moom di nuyu sëñ Bachir mi te a ne ñoom nga fa tegoon di leen saytu liggéey bi te ñoom it ñu àndoon na ñun liggéey bi te yaatal nu ca bu baax a baax ni ko da wilaan waxee rek lépp luñ ca mas soxla waa ko ànd ak nañ ñu ko teg nañ ñu ca yoon wa te yàlla dimbali ñu ci ba lañ lañ tegoon ñoom non mu yañ tegoon ne moom lañ bëgg ku ko liggéey bâtiment bi Touba ci kanam defee na ko noonu defee nañ ko noonu ñuy sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di la sant bu baax di la sant di la ñaanal di santaat bu baax nag ci tawfeex ji nu am ba ànd yow liggéey bi ndax bi nga ñëwee li gën a doon sa itte ci liggéey bi nga tàmbalee ko mooy daa jii nga xam ne sëriñ tubaa naaraloon na ko boppam yéeneeloon ko boppam bëggaloon ko boppam te jaayante woon ko boromam ba nangul ko ko bil Moustapha lii banal xudduusu madrasatan biha yesul asa wal jël wal kamal loolu tegtale ne madrasa mënutoon a ñàkk ci Touba yow lañ ko fi bàyyi loon nag alhamdulilah ba nga ñëw def ko ndax sëriñ moom léppam la mu ko waxee woon waajal na ko ba teg lu mu génn gut ak génn ma jotagut waaye lu dafa ne waxoon dafa waxoon ne Touba lépp fàggu naa ko ba teg lu ngeen gisagut ak génnam daa jotagut waaye lu génnam jot ma génnee ko dafa mel ne kon lii dafa doon loo xam ne ak génnam day doo ko jot mu jaarale ko ci yow kon ñu ngi sant bi nga xamee ne nuy ci njiitul Serigne Habib ak Touba kanam am nañ yitte ak pas-pas ak yéene ànd ko ak yow tax ñu ñëwoon jëloon engagement taxaw taxawal fa bâtiment bii suñu borom dimbalu na ba tey mu àgg ba ñëw di la ko jébbal loolu sant nañ ci yàlla lool sant ci sëñ Touba li la ci sant ndax buñ ko mënee yow a ndax fu Touba ci kanam àgg tey yow a kon ñi ngi lay sant bu baax te di la ñaanal di ña suñu borom yàlla na fi suñu borom yàggal lool dama la waxoon bañ koy doog tàmbali ci ci say wax ni wàcc wàcc ci àddina ak ñàkk soxla ci dund ba nga naan su ma xasee tàmbali rek li ci des moom su ma demoon ma ne la ëpp naa def mbàkki toogal ba lépp ak nga nga ubbi ko ñu tàmbali liggéey bi te nga tàmbali leneen te loolu ba tey moom la ñuy ñaan nag yal na nu ko yàlla defal sëñ tubaa sa jëmm ji yal na ci yàlla us taalibe yi yal na ci sëñ tubaa feeñal kéemaan bàyyi la fi ndax sagub yoon wi nga sagub lislaam yi ñëpp la ittewoo yal na la fi yàlla bàyyi alhamdulilah baax ndax sëñ bi dong nga a yàlla yonente bi de xaasal nañ ma ci seen bopp mm-hmm. waaye fekk nañ ma itte waaye yow sëñ Muntaxa it sëñ Tuubaa xaasal na la waaye fekk na la itte foo àgg sa ittee la fa yóbbu wóor na ma ne mag ñaandoon na sëñ bi bu ñu la fekkoon duñ la ëppale waaye sëñ bi tey ba xam naa ne sa pas-pas sa itte it la sëñ bi ne woon rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ma fekkutoon lu jaww ji ko daa tiim sama pas-pas may na ma am ci moom li ma bëgg loolu la sëñ bi waxoon ne ko kama doon seet su ma ko ñu ne ma fii lañ ko denc la bëggoon danaa ko ci am ba àgg fi mu àgg waaye yow mii itam foofa rek nga nekk wóor na ma ne fa nga àgg ci sëñ bi lu mag ñi am sëñ bi am nga ko sëñ bi te sa pëstee fa la fa àggale kon nag ñëpp ngi ñaan nga yàgg te wér lool te lépp loo yéenee defal sëñ Tuubaa na nga ko def te ànd ko yow sa sa dund gi daal yàlla na doon dund kiimaan goo xam ne ñëpp dañ naan lii wowutoon mën a nekk ci bàkkib sëriñ Tuubaa sagub yoon wi nga sagub lislaam nga Tuubaa ci kanam ñëpp ñu ngi lay sant te di la gërëm te di la ñaanal liggéey bi suñu ayib dana ko yëkkat teg ceeb bi sa loxo ak këy yi nga ñaanal nu ñu ñu diglu ndigal la leen ndigal loolu joxaat ña nga ca bu dee waajtaayu màggal gi it ñu ngi ci Cheikh Mamadou Bassir mii nga ci ko dénk woowoon fa fan yi waxtaanoon ci ci ndoxum taw mi ci dëkk bi te jaaxal ñëpp ci mbedd yi ba itam Touba Ca Kanam ma nga ci tàmbali na ca ma nga cay def ab liggéey nga ñaanal nu ci bu baax bala ñu àgg ci màggal ga ñu def ñu am ci ndam xëy na dana jafe ndax ginnaaw dañuy ngacc muy taw te yàlla moom coobaram la jël waaye nañ ci nekk alhamdulilah kon nañ ci nekk rek nga ñaanal nu ci bu baax bu dee ndoxum naan mi it ñu ngi ciy sant ndax amoon nañ ñeenti oto yi camion yoo xam ne Touba ci kanam moo ko jënd ngir ndox di joxe ndox ci dëkk bi luyee nañ fukki oto yoo xam ko luyee suñu bopp ngir di ko di yëpp ñu ngi ci nga a baax ba loolu lépp yàlla defal na ci tawfeex ci màggal gi te nga yàgg fi loolu ne xam ne ñoo yowoon liggéey bi it di ko taxaw ñoom it moom nga ñaanal leen suñ Cheikh Abdou suñu moo jiite woon commission bi àndoon ko maam Thierno Ndiaye ñoom ñëpp ñi ngi ci jataay bi ñoo doon taxaw liggéey bi ak ingénieur yi ak waa Touba kanam gépp nga ñaanal leen yàlla defal leen ci tawfeex ndimbal ak ngërëmu sëñ Touba jërëjëf Mbacke maa ngi jégalu ci kàddu courant balaay balaay waaw léegi léegi kii mooy waaw waaw bi mooy mooy affaire ndox mi yooyu waaw transfert baa ngi waaw informatique yeeg surveillance yooyu yëpp waaw yëpp waaw ministère yi baa ngi def moo moo moo moo def foofu yi waaw ñu ngi koy jëbal wala yo si bopp lépp rek eh, ngir jëmi sëñ bi nga xam ne moom ngay liggéey rek ñu ànd ko yow ñu eh, ñaan su borom ak def suñu waaw c'est am waaw moom de alhamdulilahi rabbil alamin gën a yeesal suñu lépp jaayante jiitu ji sadde suñu laxasaay fa seen liggéey ànd ko yéen jiitu ji tegu ci sax dàkk nag ci eh, liggéey sëriñ bi eh, ci sama waxi taalibe dama daa wax ne eh, sax dàkk ci jaamu yàlla liggéey la ko bi sax dàkk ci liggéey sëriñ bi jaamoo ko yàlla waaw ah, loolu foofu doo loolu neexut neexut lijjanti kon bis ni tey maa ngi gën a yeesal sama jaayante di gën a feddali sama laxsaay di gën feeñal nag sama yéene ji ma xam ne yéen laa ca jiital ak lu ma ci mën a bëgg rek ba ngeen jiitu ma ci ma topp seen gannaaw dafay euh, mooy liggéey bi euh, mooy Touba ci kanam gi euh, di di di di di di di pàggatu fu sëriñ Touba jógul fenn pàggatu fu am tawféex liggéey loonu ko ndax liggéey bi yëpp ci kanam eh, eh, lépp pàggute fam la ak taw fee li ti nga xam ne moo ci su eh, suñu moo di lu bari ci doxinu adduna lu bari ci li weesu ci histoire rek lay mujj waaye nun la nun fii lii liggéey bi Sëñ la cay suñu jom di suñu gor di suñ positif di suñ yitte lépp nañ ko ci dem nañ ko ci def ci suñ dund gii te faggul ci njaboot gi ñëw ëllëg ñu taxaw taxawaay boobu ba bis biñ ci ba bu mu doon histoire mukk nañ ko nañ ci nekk ba bis biñ ci ba ci kanam sëñ wa loolu de loolu loolu dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jóg suñu bopp ba noppi waaw dañuy jóg suñu bopp suñu yéene suñu sellal ko suñu positif ñu wéral ko suñu yitte ñu dolli ko suñu taxawaay ñu yokk ko suñu këm kattan fas yéenee sax dàkk nag ca gis sëriñ bi rek xool sëriñ bi rek naan xool sëriñ bi rek buñ ko gisee bu buñ ko defee nii ñu ko waxee bis bañ ci ba rek da lay bii day dox ba bis bañ ci ba du mujj ci histoire muk te lu bari ci addu dox yi histoire lay mujj kon lii moom la ci suñ jom di suñ gor di suñ pëstëf di suñ yéene di suñ yitte seen taxawaay nan ko nan ko def lépp ci liggéey bi di di dox di dox euh, ba suñu dund jeex ñe ñene wuutu ëpp lu ci ëpp lu taxawaay liggéey bi dox di dox di dox ba ci ba ci kanam Sëñ Tuubaa loolu mooy moo loolu loolu loolu loolu dañ koy fas dañ ci jugal suñu bopp fasal ko suñu njaboot muy muy muy muy di wéy am naa ci yaakaar nag bu baax a baax a baax a baax fa tabaarakallaahu liggéey bi taxaw taxawaay bi mat na sëkk rafet na sell na fa tabaarakallaahu lépp nag dama koy daal delloo si nag ci sëñ Abibu mii du du du du loo xam ne dama koy dama dama koy gërëm ak dama koy dara dama ko jàng ba xam ko te xam ne moom ko njal bi li xamoon naa lépp lu baax la li jot a lépp lu xamoon naa ko waaye nag eh, dama ko jàng ba xam ko nan nanu nanu gën a ci taxawaay fii fii toll nañ ci gën a sant yàlla bu baax a baax a baax gën a sant yàlla gën a sant sëñ Tuubaa ci fàggute bi nga xam ne fàggul nañu ko ak tawfeex jure yi nga xam ne defal defal nañu ko euh, ci sëñ Abibu mii ndax taxawaayam bii du taxawaayam nit nit kese taxawaayam nit tëgguma ko waaye seet na ko piste bi mën na sëkk piste yi mën na sëkk yitte ji na lool ngor gi mat na jom ji mat na dox gi mat na itam lépp ndax delloo na delloo na lépp ci sëñ Tuubaa loolu tëgguma ko dama wax dama ko jàng ba xam ko ci moom loolu moo tax ne kon liggéey bii xel daal na ci na ci sama xel daal na ci bu baax a baax waaye ngir xamee ko noonu sëriñ nan xool sëriñ bi rek xool sëriñ bi rek bu ñu xoolee sëriñ bi rek suñu kem kattan di ko jéem a xam di ko jéem a dund suñu kem kattan eh, alhamdulilahi rabbil alamin du ñee kenn fa suñu borom nan góorgóorlu baax Euh, sëriñ bi mooy mooy yoonu yàlla rek amul yeesul mooy yoonu yàlla rek sëriñ bi mooy yàlla yàlla rek jox na yàlla jox na yàlla léppam tënul dara lu boromam sëriñ bi tënul dara lu boromam ak yonent bi mu ko ci biir loolu itam gaa yi yàlla yëpp ca malaayka ya ca yonent ya ca gaa yu baax jox leen seen àq seen diggante digg jox leen seen àq ndax bokk gi bokk ak moom se seq gi seq seq ak moom seen borom jox leen seen àq ba mu mën sëkk waaw kon sëriñ bi doxin bii da la ma ci yéene mooy eh, nu bokk ci eh, ñi ñoo doxee ci wàmmatug suñu borom ñuy doxee wàmmatug suñu borom nga xam ne dara ci seen bopp waaw waaw tàmbale ko ci malayka yi tàmbale ko ci yonent yi tàmbale ci gaa yu bi ku baax بفضل fi wut تعالى لما ارتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله